الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السرين بي الشيخ Ahmed Tijaani Ñas xalifatu Cheikh Ibrahim wa najluhu radi wa axi wa sadiqi wa xalifati alyowm nasalu allaha taala an yataqabala minna ñi ngi ñaan yàlla ñi ngi ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yi yaa ma digaloon ma ñëw yaa ma booleeg muqaddam Alioune Seck moom moom itam comme ni ma fi ñëwoon daaw jéeg daaw dama tukki woon ma wax la ne mbuur ku fi sawara ñëw laa ca kaw la waaja waxoon wa ma xubbu diyaari chaxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara du ne tabax yi laa ci jublu ñi fi dëkk tax may wax ren yàlla def ma bokk ci ci bés boo xam ne sax ndax bés bu xatle ngir yàlla maa ngi leen doon teewal ci 16h ba timis ci daje bu am ndakaar ngir fonde daara moderne ca Zac Mbao soppe yu bari ñëw fa ak kilifa ñi ngi sant yàlla ci tew tawfiq ma jógee fa dem Grand Mbao ci conférence annuelle bi ngeen ma sant ma di ko fa def at mu jot ñuy wax ci tawxiid taalube yaag soppe yaag xarit yépp ñëw fa ba sànq ci vingt-deux ma xàttar bi koo fa ne mbuur maa ngi ñëw sawar ci lool nag ndax xam naa ne booba àll yu neen ma yow départ nga ba egsi nga ñi ngi sant yàlla bu baax nag li ñu fi daan indi at mu jot moo ñu fi indi mooy li ñu jàngal yaree ñu ko te tey yaay kilifa gi te loolu ñi ngi ciy sant yàlla mooy ñëw gàmmu waaye gàmmu gi gàmmu la ak plus ndax yaa ngi door a ñëw mbuur ci kanam taalibe yi comme na nga ñëwee woon Dakar ci kanam taalibe yi ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne kum dimbale sa lépp jàppandi yàlla la dimbale yàlla nañu dimbale gàmmu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu xamoon na ne jamono day dem ba géew yi laaj tuuti ak soppeeku même buñ ko teyut mu jàngal ñu gàmmu ne gàmmukat mooy daje di waxtaan ci lislaam léeg-léeg nga woy bosam nag mooy gàmmu par excellence waaye ñun ñépp ca hamziya ca laamiya ca bu mun di doon buñ dajee di sikkar ak woy ak waxtaan ci yónnent bi ak xulafaawam yi ñu ngi ci digg gàmm loolu nag laa bëgg a jëfandikoo sa ndigal jël ay minit fàttaliku ne yal na yàlla fay képp koo xam ne sonnee nga gàmmu ci Sénégal waaye yal na yàlla fay baay mi nga xam ne moo ñu ci nàmpal waxoon naa keroog ne am na kilifa gu dëkkul ci réew mi ma nga dëkk ci réewu arab mu mag boo xam ne booy aj te àggagoo fa ajagoo mu ne ma diw dama ñëw Sénégal 1960 ma gis ne fukk yu ma dajeel rek ñépp di jullit wala juróom-ñeent ña di jullit fu ngeen jaar te France xam naa ne nekku fi woon ngir di jéem a dimbale lislaam ma ne ko am naa ñaari tontu bii dafa gudd bi dafa gàtt mu ne ma waxal bu gàtt bi ma ko gàmm moo tax ma ne ko gàmm moo tax mu ne ma dangay ngay kaf ma ko kafuma boo doon kaf sax du ma kaf yow du ma samaro waaye dama laa bëgg wax ne li ñuy tuddee ñun gàmm mooy nampal nit ñi sopp yonent bi xam lislaam jaaree ko ci yonent bi kii prototype bu lislaam lépp looy ut ci lislaam rek mi ngi ci jëm yonent yàlla muhammad te moo tax bàyyi jàkkaarloog moom ne ko muhammadul mustafa awlaahu mawlaahu kull al ataaya wa adnaahu wa alaahu muhammadul mustafa yonent bi yàlla tànn bàyyi ne ko yonent boobu yàlla daf ko méngale yàlla miy boromam di moroom lépp mbooleem may yi moom la ko jox moo tax yonent ne woon innama ana qaasimun wallahu mutin wala wallahu lmuti ñaari riwaaya man damay séddale yàlla ma digal mais kii joxe nag mooy yàlla bàyyi ne ko muhammadul mustafa awlaahu mawlaahu kull al ataaya wa adnaahu tam jegeel ko pay yëpp wa alaahu tam kaweel ko ba kenn du ko jot moom la ñuy toog fii benn minute buñ ci def rek jar na ko waxantuma ay minit waxantuma ay heure bu kenn wax ne waxtu wi dem na waxtu wi dem na ci jàmm ak barke alhamdulillah yonent boobu boobu boobu moo ne ñaari jullit fu ñu dajee joxante loxo nuyoo ree yàlla dafay baal seen bàkkaare comme garab gu xob ya wow ñu gësam ko bàkkaar du fa desate te bàyyi noonu na woon was was tënk yi kat ni ñee ko seetluwut waaye bakkaar yi mooy tënk yi li ñu def yépp day far bakkaar kullal ataaya moo tax ba alquran ne wa duha wa leyli ida saja maa waddaaka rabbuka wa maa xala wala al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka yutika fa tarda wax jërëy lool te lépp yi dëgg yàlla dafa gën ceem gëñ di tegale ya muy tegale ba ne bi mel ni maa ngi feddali comme maa ngi waat ne dinaa la jox di la jox di la may bag ne doy na gërëm na mu am nag ñaari mawqif ñu bëri ci ulamaa yi nee nañu ay bi ëpp yaakaar ci alquran mooy qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taq taqnatu min rawxillah inna allah yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim mooy aaya bi taxoon karay Hamza Wahshi yu ñemee tuub nag ndax lam def dafa bon ba mu foog ne yàlla du ko baal te amul bàkkaar bu rëy ba yàlla mënu koo baal aaya ba na ñëw ne yéen jaam yi nga xam ne yonent waxal ci suma jaam yi ñi nga xam ne dem nañ ba yàq seen bopp bu leen naagu yàlla day baal bàkkaar yépp mu ne mu gis ne aaya bi amul condition mu ñëw tuub waaye ñenn ci ulamaaw al bayti ne boobu aay baax na lool mais ñoom biñ gën a yaakaar mooy wala sawfa yutika rabbuka fa tarda yàlla engage ne dinaa la jox ba nga ne gërëm naa doy na ñu ne daal fooguñ mukk ne yonent bi ñu xam dana gërëm fekk kenn ngi sonn ci jullit ñi yowmal xiyaamati wala ay ñaar yëpp baax na ñaar yëpp ñoo ko moom yonent boobu bàyyi joxañ na ko ci xasida boobu joxañ bu rafet yëpp yi dëgg yuti yuli bila sababin yuti bila ajabin yaafu bila gadabin fatii sajaayahu néew na bu ko nit waxee ni nee na yonent bi yulii day yéege nit ci ay maqaama ci tëbbam bila sababin ci lu dul sax benn cause bu ñu xam yonent lay gendee ko rek nga jag amul cause dafay joxe maye te du yéemu ci la maye mus naa may nit mu daw dem ne ki ma gis mi ngi maye maye ku ragalul ñàkk mu ne yaafu bila gadabin dafay jéggale te du ci boole sax mer door a jéggale du mer ki ko tooñ a koy tooñ waaye moom bu koy baal du mer sax xool Quraysh seen kàccoor ga dañu xam seen langue xam nañ ne boo ne Muhammad rek bu la neexee boo naqaree tagg nga ko parce que baat bi ci xam du la jóge ci louange boo ne Muhammadu le loué par excellence mënoo ci dara même bu dee Abu Jahlin ay fu ñuy fajee ay nit ñu dof ñoo saxal ne benn dof musul xurfaan dafa mel ni am na rapport diggante loolu ñuy tuddee xurfaan ak fertilité bu nekk ci li ñuy wax xel wala wala wala wala yuur moom la nag yàlla ko xamal nee na ko wa allamaka ma lam takun taalamu ngi maa la xamal loo xam ne naayoo ko woon a xam ba ma la xamalee nag booba nga xam ba nekk su xam yi xoolal yoon yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam minute buñ def ci moom rek ñi ngi bégloo bàyyi ndax dafa defoon gàmm muy gàmm dundam bi li ci des di application gàmmoo ju ko jum la jàngal rek ci yonent bi soo ko fugloo danga gis ne buy agir noonu lay agiree day jéggale day yërëm day may day suturaal bay suturaal quelquefois yàlla ma yàlla baal koo xam ne sax pour man rublaar la kàccoor la waa ji fii la toog bàyyi toog fii ma toog fii waa ji wax lu lëndëm mel ni ku bëgg a ndax baay ma bëgg a wax baay lu waxi baay waxi waa ji bàyyi dama nii mel ni ku may xaw xëj soo mu ne ma bàyyil rek ndax mu foog ne dégguma li mu wax maanaam bàyyil mu nax ma bàyyil mu nax ma ah lu mu koy lu mu koy jëriñ xam nga kooku bokkut ak soo ko laajoon alhaaji abdullahi doomam rahmatullahi alayhi moom mi jàng ba sonn ci daara ji dégg mbappat mbappat du darakat ci mel na ku ndaw ñu ngi naan pat pat ay tëgg yoo xam ne neexul sax mu ne mu dem fiixu lu tuuti ñëw jàngaat bàyyi nga ca Conakry mu ñëw ba jege foofu nekk marché Médina tey dégg kàddu bàyyi gu set ne ko yàllaa eh, ji daa lool loo ci mën hmm? xam nga am na ci ulama wala saraar ñu ne dañuy jëfandikoo lu ñuy wax irsaalul haatif def ay ñaan def ay taxte loo xam ne mën nañoo yónnee nit ay xabaar ak yooyu pour pour tooñ de du loolu xam nga bàyyi lu wax moom dafa ne man shakka fii daa fa araa wa asmau min xaysu laa yara alfata wa yasmau waaw ba mu waxee may yu ko yàlla may bañ xam ko pour bég ci mu ne ku sikk lii ma wax nag ma yëgal la ne dinaa di dégg lu kenn dul dégg dinaa di gis lu kenn dul gis benn nga noonu benn ngi noonu gis yi nag moom waxuma raa ruyatan de waxuma raa rayan de raa ruyatan laa wax danaa seen gis loo xam ne kenn du ko gis yàllaay wone loolu moo tax nag ma bëggoon ñu ñépp niñ fonkee hamziya fonkee ko burda fonkee ko mbooleem woy yi ñu taggee yonent bi di ko gàmmoo ñu bàyyi ci xel nag dawaawiin yi nga xam ne bàyyee ko ràbb ci yonent bi yonent nit yonent nite yonent yonent yonent itam al xaqiqatul muhammadiya parce que dina ko tagg ci loo xam tagg koo xam ne loo dégg-dégg arab foog nga laaj ko ba xam muhammadu bu ne sirru wala ramzu rek lam cee teg soxlawul ngóora tëb rek la soxla moo tax tagg na yonent ci fuñ xam tagg na ko fuñ ko xamul léegi nag comme gàmmu la dama doon tàggu sëriñ bi ay bayti yoo xam ne guddut muy sama barkelu baay wax ko ci yoon wi ñu mujjee dem mën madinatul munawara dama cee jukki sax ndax bañ rek mu gudd loolu ku ko def mi mel ni mos nga ci gàmmu te sëriñ bi dama xam bayti yooyu ba mu ko njëkkee dégg ak waxtu mu ko déggee na muy def ca moom gis nga dañoo bëgg a départ pour jëm Makka benn médecin ne bàyyi sa sante munta aji sifaar yi xoolal mooy sifaar yi sifaari ila alhaadi lidalika afraxu qiraaya liqa xayril wara wa huwa afraxu ba ñuy départ rekk maa ngi seen bàyyi ndeke ma ngay defar aw xasida ñu egg fenn mu ne ma jabb ca Madinatu Munawwara këyit gum bind loxoom ba mu jeex mu ne ma jàngal ma dégg ma jàng bu pare mu ne waaw demal nga sotti ma sotti ko denc mbindam loxoom ma ku ñëw sottee ci suma mbind loxo baax loolu baax ba ñuy départ nag ndeki bàyyi moom moo ne sama tukki mi su ma jógee maa ngi départ nii waaye maa ngi jëm ca ki yàlla def muy jubal mbindeef yi alhaadi ila siratillahi mustaqim yonent yàlla muhammad mu ne loolu nag moo tax may bég bu ma déparé rek jëm Makka ak Medina foo ma gis rek maa ngi bég loolu xabaaram ya wér na waaye nag xabaar ba ca gën a wér mooy ay aynul yaqin ñi ngi janoog moom ñun ñëpp may ma sax ma jàdd ma jàdd door a wéy ci xasida wi sëñ bi nga baal ma waaj nañ jëm Makka Cheikh Ahmad Tidiane mi alxalifa feebar nga xam ne normalement booy dex atte yi nga xam yi nit ñi xam warul aji mu ne ko foog nga dem ñuy dem muy tane bañ egg minan sëñ Cheikh a ngi wér bàyyi geesu ko ne ko su la bàyyi woon mbir na du ma la fa fekk loolu am na wala amut mais nag toobo gu war rekk garab tànk du ko dëgg waay yal na la fi yàlla yàggal nañ dellu ci xasida bi xiraaya su ma ngan gi ma yónnanti ganale su ma demee man mooy liqaa xayril waraa daje gën ji mi moom bég naa de waaye af roxu moom a gën a bég mhm. xam yonent bi xam yàlla xam wax yaaram xam littérature xam moom boppam yubashiruhu baari bi matxi maa ngi tagg yonent bi waaye dosiye bi ki koy jébbal yonent bi ba mu bég ci yàlla la yàlla ko yëgal ne Ibrahima ma ngi lay tagg duma ko firi duma ko taawil mu na waat na dëgg la gis ngeen ni ma leen di naxee ñaari gàmmu laa def du baay ak yonent wa zawrati ak siyaare gi ma koy siyaare yàlla koy wax ne yaa muhammadu ibrahimu yazuruka déglul baay dina taxaw ci di siyaare yonent bi loo néew néew daraja mu geesu bu ne yonent bi diw tudd boppam askan boppam day geesu ñi àndal ku ak mi ngi ànd ak diw ak diw ñoo lay siyaare ñu dem faas loolu lay wax xam nga lu mu cee teg innal kirama ida ma aysaru dakaru man kaana yaalafuhum fil manzilil xachini déggal déggal mu ne ko nag gars yi ñu gentil ñu baax ñi te yow yaay seen sang suñ demee ba seen affaire baax dañuy fàttaliku ña leen xamoon ca kër gu ñagas mooy fi ñu nekk ñun demaguñ xam nga loolu ci waxinu ñu wax gënu koo rafet boo jekkoo fàttaliku ña sonnoon yàlla ataaka fa tarda ñi ngi nii ci sa bunt asiru ma abraaru dhalika aflahu mu ne maa ngi nii di tukki di jëm makka waaye ñi ma àndal ñu baax lañ alhamdulilahi rabbil alamin abraaru mun na nekk itam malaayika yu ko yàlla booleel ñépp ñu nekk di abraaru mu ne loolu nag kuy texe texe dëgg ngoo dawaa ishtiyaaqi lil madinati jammatun yi tax ma namm madinatu mun a war a sopp ko dafa bare du benn mu ne benn bi jës bu la gu ma mos ci yàlla mos ko ci yonent bi mu sax jës bu ci waxee arab mooy xëcc ko mu ñëw te du mën a ñàkk ñëw waaw fa jazbun wa shawqun ak cofeel ak nameel goo xam ne laa yazaalu dëj mukk goo xam ne mubarrixun ku sonal ki sopp la ndax dootoo mun a muñ wax na ne jooy na ngir bëgg yonent bi ak namm péye ba jooy ba rongañam jeex ba kaytu fa afnaytu dumua wamal wamal bukaa siwa xaalatin fi sadri min xurqati shawqi mu définir jooy fa moom mu ne jooy naa ba jeexal rongoñ te jooy ka du dara lu may xaal bu nekk ci biir dënn bi di lakk xol bi muy indi ndox tàngaay yàgg naa génn ndox muy jooy fa taban uhibu lmustapha fa isharati ilayhi wa tawran bilwidaadi usarrixu mu ne man dama bëgg rek yonent bi mënuma koo ñàkk bëgg su ma nature la yàlla ma ko junjee moom laay junj léegi-léegi nag ma wax ko jaar ko ca digg ba muhammadu yaa xayra alxalaayik du ma ciy junjante parce que ko wax ne ko fa min mabda'i lkawnayni lam ya'lu naaqatan abarru wa awfa minka yaa afdal rusul ba yàlla bindee àddina ak alaxira ba tey kenn mustawar gëléem ku baaxee ni yow ma ne ak kay kenn mustawar avion tey ku baaxee ni yow sallallahu alayhi wa sallam mu ne daf koy wax mu leer inte yi mu ne fa yaa maa uxayla an nuqiima bi taybatin hunaaka tara nuuran nubuwati yalmaxu mu ne ak a neex ak a neex ma toog rek gis ne maa ngi ne ci madinatu munawara bu ne carax madinatu munawara fàttaliku leen foo ko gis rek mi ngi neex deret di muuñ buñ eggee hôtel ba mu ne dem leen doom mbedd mu ngeen jaar rek teewul leen yonent mës na faa jaar di ñu motiver di ñu préparer kuy waxante mu ne bul waxante fayal njëg gi la laaj rek ñes mu ne ak a neex ma nekk taybata yàgg na faa nekk nee na yonent bi ataytuka tisaan summa ashran wa innani ataytuka haadi mos naa fee ñëw juróom yoon mos naa fee ñëw itam beneen fukki yoon ak yoon wi muy ñaar fukk bu mu la nax dem na fa lu ëpp ñaar fukk fukki yoon yi ba ca at mooma bu ci nekk moom baay mooy dem ci yonent bi hunaaka tara nuura nubuwati yalmahu su boobaa da gis ne leer ak nubuwatu ma ngay melax foo gis bimarqadi xeyril aalamina muhammadin mai safatul ahbaabi dalika anjaxu maa nga foofee yonant di nelawee mais nag daawul nelaw bi muy dund fee itam du nelaw ndax fàttaliku leen ne yonent nee na fu waay toll ci sama xeet bu la neexee jullil ci man ku ma nuyu rek yàlla delloo ma sama roxo ma fay ko kon nag cent millions nuyu xaju ci 24 heures daf laa bëgg wax ne maa ngi dund maa ngi dund tawajjahtu mi mu ne maa ngi ànd ak soppe yi nga xam ne ay tànneef lañ te loolu moo gën a réussir fexe ba bokk ci soppi tànneef yi tawajjahtu min ahli ilayhi yasuuquni wa daa sharafun jibrilu wal qalbu yamrahu maa ngi jëm makka xoolal xeebuma sax chauffeur bi may conduire ma jëm Dakar tudd jibril te maa ngi jëm ci yonent ba mu ne loolu sax man honneur la ci man ndaw jibril mi doon màng yonent yàlla Muhammad di ma di ma conduire ko hmm? wal qalbu yamraxu xolom bi mu ne mi ngi sigiree ila xayri haadin xayri man wati a maa ngi jëm ci gën ji ku jubal nit ku bëgg yàlla gën ji ku dëgg ci kaw suuf wa xayri shafiin gën ji ku ram nit ba mucc xayri man jaa yuslihu gën ji ku ñëw pour indi réforme bu am njëriñ ci àddina bi kooku moo yonent bi yaquluuna la taxruj médecin ba ñoo nag yaquluuna la taxruj ñu ne ma e bul tukki bul voyager man de lu tax ma ne li suqmin wa mahramin da nga ba pare te da nga nga fi mu ne fa uzruka sa ngant pour bañ dem màkka azharum awdahu moo gën a leer min shamsi zahirati ci jant njolloor yow daal am nga lay ren yaa ngi nii wéradi te itam mag nga am ga ngant te dem nga màkk ba tàyyi déglu lam koy tontu mu ne ma ne fa qultu shifa suqmil wuquufu bi baabihi wax naa wax nga feebar mais euh, suma saafara mooy dem rek ba taxaw ci bunt kër yonent bi ani tibbi yuxu nii nii daf may doy looloo wali sax médecine këman zalay zalay jaraxu mais ni koo xam ne dangaa yendoo di faggu rek li nga soxla yépp te amuloo entrave jaraxtum bi léegi di fàttaliko bunt booba muy wax xaqiiqa la gis nga xasida bii bàyyi def ne ma jàng ko ci moo waajiha sharifa mi ngi taxaw te foofu dañ fay aaye lu nekk ma wax ndànk ah? si sëriñ sëriñ bi nee na loolu maa ko fàttaliku wax da ngay wax lu wóor gis nga ma ma ma ma ma commencé wax ndànk ndax du ma bàyyi bàyyi ne mu ne ma irfa sawtak yëkkati sa baat ma ne amri ilallah rek sifaar yi yëkkati alkaat yi foogoon ne dañ ñu war a tas ni ñuy def nit ñi def benn cordon wër ñu pour ñu jàng ba mu jeex te seen mag mi moo jublook man ma pare mu doq wanteeg man ba di taarongoñ te loolu lu garaaw la baay fay xaal ba yàgg naa leen ko wax nam ko fayee mooy dafa ne nu xeej ay billets yu xonq dugalal ko waa ci poosa bi xaal ba fay mooy te ne ko xaalis ci xaal dafay fay xaal maa leen ko wax day nay sax dugal ko waaw gaa yi foofa nag bañ demee ba ca hôtel ba ba ca takkusaan passé mu ne ma xam nga buntu kër yonent ma ne ko yaa ma ko woon mu ne ma dellu fa nag nga jàngal xasida jàng ko ca buntu kër yonent ma dem ba buntu kër yonent fam ma woon ca biir jàkka ja ma ju ma jàng ko ba mu jeex ma ne allahumma ishhad ne jotal naa liñ ma waxoon ñoo ne ko def naa li nga wax mu ne alhamdulilah ci ëllëg sa mu jël diwaanam bi fi mu boole ay diwaan yu bëri ne bàyyi ku bëri diwaan la mais biñ tuddee shifa rek léegi bind ca kaw ñaari nusxa ne maa ngi koy hadiyaal rawda bi yónnent wax ne bokkul aljanna maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna ma ne ko ah, mu ne ma daal boo fa rek nga teg ko fa rek dem mais nag man yenn saa yi ma dem ba ca rawda ma dem ba ca ustuwaanatu lu lubaaba fa mu yeewoon boppam ne fekk yàlla baalu ko duñ ko yew yewi ustuwaana boobu ma dem fa julli ñaari rakka teg fa ñaari nusxa ya ne allahuma ishhad ne ballaxtu dem nag nanguwumaa geesu ndax xam nga ba tey dese tuuti ki ngoneeg taalube bu ma geesoon fekk ndusxee dem bu yàgg dafa yoon daf may jommal te bëggatumaa jommi ndax yonent doy na ma jommi bàyyi ma ko jàngal mun naa geesu fekk mu dem xaar ñaari ndusxa bàyyi may ko rawda ba eh, mu ne wa inni muhibbun dér bàyyi ne ko a uxlidu lirraxaati wa naasu kulluhum yaruxu wa yaxdu lil amini wa yuflixu yow da ne feebar naa mag naa bu ma julli bu ma aji ren ndax damay dem di noppalu ji ñëpp di xëyee ko gont jëm ci yonent bi di taxe atruku layla laysa bayni wa baynaha siwa laylatin man ma bëgg layla di dox jëm ca gàdd ak layla ga ba benn guddee ma des rek ma yegg fa may waññeeku yow xanaa xamoo li nga wax genn guddi ga nekk genn guddi la mu ne chafas mu ne mu ne mu ne man lii bi daalika yan saxu ku ma ñemee laaye biir ren ne ma waññeekul bul continuer seeti Layla maanaam bul aji bàyyi na atruku Layla wax na ko mu ne chafa suqma bal ahya biduni takallufin balil qurbu wal massu shifaul murawixu ala ya rasul allahi jitu mualliqan alayka shu'una almuntamina wa ashrahu mu ne nag moom yónnant bi yàgg naa gis mu raay ku feebar mu wér dégg ngeen léegi bi ñu nettali mu ne mu ñëw seet son baay raay ko mu wér ay témoin la tëbb la hmm? mu ne jege ko rek gis nañu ko jege rek wér angañ yónnant bi mës na sibiru seen na Abubakar seeti ko tiit ba sibiru yonent ci njëkk koo dem seeti ko mu bég ba wér ñu ne moo wax ne marid alxabibu fa udtuhu fa maridtu min asafi alayhi bari alxabibu fa aadani fa baritu min nadari ilay sopp sopp du caaxaan surtout sopp ak mag bàyyi joor yonent bi ne ko dama ñëw ñëw naa ziyaara si ngir itam mbiram ñi askanu ñépp jëm ci man wala sax jëm ci yow faf ma ñëw charaal la seen dossier jamono jooja wax ji laajoon na ko mu ne fa axiru mabuusin wa awalu shaafiin wa awalu man yaalul jinaana fa tuftaxu yaay ki njaal la njëkk a yónni même boo mujjee ñëw yaay ki njëkk a ramm bés ken kenn amul parole njëkk yónent ramm pour yàlla rammu nit ñi laa tasmau illa rikzan yónent ramm yàlla yërëm jaam yi door leen a am ñu mu condamné mu ramm ñu jéggal leen am ñu dugg mu ràmm ñu génne leen ba ulamaaw yi ak soo ak ju baax yëpp di ràmm bàyyi nag ne déglu ko rek mu ne ida tuftu xawla al arshi walxaqu fawqahu ida tufta ida tufta حول العرش والحق فوقه وقد خاف كل رسل كل يسبح ملائكة الرحمن والرسل كلهم يجولون بحثا عن شفيع يرشع إلى أن أقروا بين نوح وآدم وموسى وإبراهيم والحق أوضح وعيسى المسيح وهو روح إلهنا وكلمته نجل البتول وأفصح بأن حبيب الله طه محمدا شفيع الورى المقبول ينجي ويمنح mu dessiné table boobu ne bés boo wëree yow yonent bi wër arash fekk yàlla ca kaw arasham nga ca nam ko neexee ñëpp yonent yi sax tiit ku nekk ngi sabal yàlla malaayika yëpp ñu ngay wër ànd ak nit ñi di seet ku mun a ràmmu jaam yi ndaxte tàng na bañ mujj ñoom ñëpp muy nuuxun muy aadam muy muusa muy ibrahim muy isa ibnu maryam nga xam ne mooy kalimatuhu ñoom ñëpp ñu mujj d'accord ne soppe yàlla bi taaha muhammadan moom rek moo mën a ramb mbindeef yi teñ nangul ko ram moom ba musal leen may leen ay may booba nag la bàyyi ne ko mata qumta wasta al anbiyaai mushafaan hunalika ashdu bi sana wa ulawixu mu ne ko bés bu la yàlla ne rammul nag ba nga taxaw ci diggante yonent yëpp di ram ramm ma itam dinaa jooru tagg la ba joxoñ la xam ngeen kuñ jooru taggu ko ci ñun fii lu muy mayee waxantu fa yonent yàlla Muhammad bàyyi ne ko fa kam fa booba hunaaka tadakkara ya shafiu muqassiran asiira garaamin fiika yashdu wa yamdahu su boobaa rek fàttalikul yow yonent bi ramu ku gàttañ lu ki sopp la lool nga xam ne sa cofeel gi dafa ko dafa ko jàpp comme captif amatul sagoom mu ngay jooru ca kaw di la tagg mi ngi lay tagg ci say jikko fa innaka awfa nnaasi ahdan wa zimmatan wa akmaluhum xulqan wa asxaa wa asmahu ndax yow yoon caal Muhammad ñépp yaa leen gën a matal kóllëre ñépp yaa leen gën a mën a sàmm kàddu ñépp yaa leen gën a mët jikko ñépp yaa leen gën a tabe ñépp yaa leen gën a mun a maye wa habta walam taxsha iftiqaaran yow yaay maye maye ku ragalul ñàkk wa faaqatan ku ragalul joote fa ma samahat nafsun bi ma anta tasmahu amul benn bakkan bu ma sa tabee néega joxe li nga néega joxe yow yonent bi may ñaan fa kam akarin kam min qanatira marratan wahabta ila al aadai wal kullu yafrahu bëri na alal ju bëri joo xam ne ku ko moom nay ca yow nga boole ko may ay nit ñépp kontaan fa fi kulli xayin xad xabatta bi naamatin amul gàddu goo mayewul lu leen bégloo fa hab lii amaanan ya rasulu wa asqini min alxawdi kasan la ura bul commencé la ara bi ko waa ji maas ni ak daxu mu ne kon nag maa ngi lay ñaan yow yónnant bi nga may ma kóllëre may ma assurance te nga nandal ma ci sa xawdu euh, bi kaas boo xam ne su ma ko naanee dootuma mar dootuma sonn wada bada taamirin ala nahji ahmadin wa atbaihi la ina qaadu wa aslahu mu ne lii may wax nag waxuma jooni jooni bada taamirin gannaaw boo ma fi dundalaatee ala nahji ahmadin ci kaw yoon wi yonent bi rëdd wa atbaahi ak toppam yi saaba yeeg ñeneen ñi allaa ina ñi nga xam ne xaadoo omman nañ bindeef yi waasalxaw te ñu defar leen bañ defaru gis nga bayti bii du secret ñaa leen ko parce que la fi mu ne dama jàng way wi ba egsi ci bayti bi ko jiitu ma jooy ngir lu ma dama cee yëg lu mel ni tàggoo ma xëy ñoo fekk baa yokk ci bayti bii wada baada taamirin waaye nag du léegi gannaaw moom fi nag ma dundal lu kii comme mënta tappale ay gan ñëw ci gannaaw samay jàngaat xasida bi mu ne kenn kii bayti bi maa ak baraam ngee tax ma yokk ko ci ma ne ko feeñal nga sekk rawi di la ilaha wala baal taamirin pour mës mësal ma wa sitrin jamilin ma ngi koy ñaan sutura summa afwin wa rifatin ak njëggal ak yëkkati suñu mbir wa fawzin ak texe wa ridwanin ak ngërmaane amlahu min al xuldi ndax ngërmaane akbaru la yàlla wax ci àlaxira wa ridwanu min allahi akbar nga booleel ma ci nag wa ruyati rabbil alamina bi daarihi ak gis nag gis gis yàlla ci aljanna ndax tey ñii werante ñépp ci shuhud ak ru'yatul qalbeeg basar ak yëpp werante wuñ ne moom yonent nee na ñëppay janoog yàlla bés penc comme nit ñuy xool weer wi kenn du buuxanteeg sa morom moo tax mu ne bidaarihi bidaarihi ru'yatu rabbil alamina bidaarihi mazidan ala alxusna wa rabbuka abnahu mooy alxusna wa ziyaada la fii yàlla dana fay nit yool yokkal ko nag yokkal ko mooy ru'yatu fil fil jannati ci firikat yi bàyyi na ko fa diinu ko diinul xaqi sa diine ji nga tasaare mooy diine dëgg inna diina inda allahi al islaamu xad dalla sànku na perte na saayu man yuxaawilu itfaa nuurihi kuy jéem a fay leer ak diine ji kayfa yanjaxu maa ngi yéemu kuy jéem a fay leer ak jant bi nooy defee ba am succès mënta am رموا وحي مولانا وكادوا وزخرفوا سياتيهم خزي ولا الدهر يبره am na ñoo xam ne ña ngay jéem a ñaawal wax yu muy alquran di fexe ay fexe mu ne ñoo ñoom nañ xaar torox teeng leen di ñëwal te dootuñ nopp lu gannaaw tey te xewuñ déglu nag mu def benn défi mu ne junuunu la nii nin walkaraadini fa amantu bilmaahi dalaali wa ufsihu nee na Lénine ca Union soviétique ak tëralam yaag stratégie yaag révolution ba daane saar yaag communisme li mu def yëpp ci àddina mouvement boobu yëpp kat mu ne junuunu Lénine ndof ak Lénine mi dàq am ak yàlla zaahiru mi ngi ne fang ku ku dem ba foog na yàlla amul yow yay dof même boo taxawalee nguur bàyyi ne fa amantu bil maahi dalali ufsihu man maa gëm yonent bi miy far réer ba musal nañu ci te dama koy wax ba mu leer ñëpp di ko dégg la daa arafatin qad tatahartu saafiyan li malqa karimin baabuhu yatafattahu arafat sangu naa sangu boobu nga xam ne ñu bëri duñ koy def fi ne sangu bu amul rag rag sottee ndox ma jabeet mu ne pour préparer set naa wecc ngir dajee yàlla mu tabe mi ngi xam ne buntam bi dafay ubbeeku nag ramaw nii ram yi jimaar yi wa axtau ana diddu iblisin wala mu ak ab roxo bay ci bi nga xam ne ñu bari ci arab yi mën a jàng daf leen a yéem lool bàyyi ne ba ñuy sànni jamra am na ñu juum ñoom sànni mu dal ma mu ne juum nañ axtau ndax mu ne man maay noonu iblis miñ ne moom la sànni foofa ndax ngay demee di sànni dara bàyyi ko loola di sànni noonab loola te maay noonu iblis xam nga muy fàttali te ngeen baal ma dafa mus a am fëf naar la bu am xam-xam mun a way xawoon a dët xool baay muy jàngale mu gis baay ca jub jaawiya ba ne baay yow daal alaya la bësta xaqan aya talbis yow yow nag yow jaxase nga sama xel mi a cheikhu tarbiya fi am cheikhu tadris yi moo yow cheikhu tarbiya nit ñi di egg ci yàlla wala jàngalekat bu yéeme nga anta alladi bi kilaa wasfayka muttasifun lillahi darruka yaa addu wa iblis yi mu ne ko ah yow sax amoo benn melo rek murabbi nga muallim nga yaa baax yow noonu iblis bi bàyyi toog ba boobu nag bu di ko fàttali ku fekk fanweeri at ak nangam jaar na ci diggante ana diddu iblisin wala mu ak ki doon sànni jàmm xam am na ñu tayal duñ xam sax fu seen xeer jëm ñu jàmm bàyyi bàyyi bàyyi ne was wa asalu mawlaana ya ummu jamiahum bi rahmatihi ñëpp yal na leen yàlla yërëm même ñi sànni sax ba jàmm yal na leen yàlla yërëm kay maa yafuuzu wa yuflihu nauubu bi suulin kulluna wa salaamatin ka aadati xayri nnaasi wal wal urfu aslahu yàlla nañ ñibbi jógee suñ aj gi ku nekk la nga doon ñaan nga am ko ñun ñépp ñu boole ca jàmm te loolu mooy aada yónnant ku dem ci moom jàmm nga fay jëlee wadaatuhu laa astatiu wadaahu jara damu minni wal fuaadu mujarraxu ñu xëy nag bàyyi wax lii la fa xew bàyyi ràbb ko ci xasida wi ba mu koy nettali gannaaw yooyu xew yépp ci xasida bi bàyyi dafa xëy nag di tàggoo ñuy dem ca darix ba ba ziare ba pare la ko jaa la ko gaar xam nga bàyyi duñu wax xaal fim ne bàyyi du mbërëm xaal xaal pour ñun la am na lu ko gaar ba muy jooy jooy yu métti ba sax am na ku ko téye moo ko tere egg suuf mu ne nag wadaatu ma tàggu ko moom yónnanti la astatiu mënuma wadaahu mënuma ko sax a tàggu jara damu min nii sama rongañ tuuru na wal fuaadu te xol bi mu jaraxul luñ jam la ndax tàggoo gi moo métti gannaaw gi nag moo ñu ko wax ñoo ko wara a ndeke ndekkee jooy yi du caaxaan nee na bi mu siyaaree ba bëgg a wàññeeku mu dafa dégg kaddu ci dariixu yonent bi mu ne ko yaa ngi dem nag mais demut mënta tàggoog yonent bi mu ne wa inna alladi radda alkalima li ummihi sa yarjiuni lil man hamanna wa afrahu ke delloon Moussa yaayam gannaaw buñ ko sànnee ci ci ab taabu sànni ko ci niil ka ko delloo si boo muy delloo si ci yonent bi moo tax moo xoon njëkk lii ne aichu bihi bu mu ne buñ ma robee aichu bihi li yowmi liqaay ba bés penc maa ngi moo may nekk mu ne wa awdan li batin qad alawtu bilaadahu wa naaru ishtiyaaqi kii bi dafa guddi ndege wa naaru ishtiyaaqi lil madinati talfahu bàyyi ne au retour jaaraat naa Medina xam nga lan la parce que dañu dem dañ jóge aj gi dem Khartoum ci invitation war fa jógee dem Abu Dhabi Imaaraat xam nga foog nga survolé waat Medina bañ jubee Medina mu ne ma mu ne ma jox ma cartable bi daal di daal di génne kii ne xaaral ma yónnee yónnant bi télégramme noonu chef de d'état yi def bu ñu romb buñ survolé dëkku seen xarit dañ koy nuyu xaaral ma nuyu yónnant bi ndax ñi ngi tiimaat dëkk bi lu mu baax ndax bayti bi boo xamul asbaabu nuzul xëy na doo xam noo koy firee mu ne wa aw dan li badin nañ commencé woon ñu dellu cewaat xad alawtu kawe naa ci avion bi bilaadahu madinatu munawara mi réewam wanaaru stiyaaqi te safara waa moom sama namm ga la dèjà talfaxu dana mu lakk lil madina jëm madina bu yàggul laa fi jógee waaye maa ngi ko nam xaat xaaral ma nuyu ko lu mu ko wax salaamun ala kanzil baraya alladi gada bihi kullu fi daarayni yanju wa yarbaxu maa ngi nuyu ki nga xam ne mooy kanzu mooy trésor mbindeef yépp ki nga xam ne ñépp ci àddina ak alaxira ci moom lañ mun a jaaree ba mucc ba muñ a ton alayka salaatullahi summa salaamuhu aubu wala shakwa wa taaha al mu nuyu ko nag jotliku ci julli gi ne maa ngi ñibbi yal naa ñibbi fekk tawasatuma dara te yónnante mooma yewi alayka salaatullahi summa salaamuhu mada dahri taal haashimi liya marbahu nuyooti ko julli ci moom jotliku ci ne yónnante yal na nekk fi muy tono moom di am bénéfice jamono yéppam mu nuyooti ko julli ci moom ne min abaina shummi alladina qad awdahu mu nuyu yonent bi julli ci moom nee na uutu ci baayam yi suñ baay yi nga xam ne ñoom ña dañ yàlla leen yëkkati comme ay montagne nga xam ne leeral la na nañ nañ ñi diine ji alayka salaatullahi summa salaamuhu wa nagrifu min bahri rasuli wa nanzahu mu nuyu ko julli ci moom ne itam yàlla nañu continuer di tànq ci géejeeg yonent bi di wëgg itam suñu suñuy suñuy baag sëñ Maamoun am na lu seetlu wax ba ko man seetlu wu ko woon xasida bi ñëwee ba xartuum bu njëkk bi maanaam sans bayti boobu bàyyi daf ne ma jàngal ko am mbooloo Maamoun nee na bi ma eggee ci wa nanzax wa wa wa wa wa naxrifu min bahri rasuli wa nanzaxu mu ne dama ko bal benn mouvement ne wa nanzaxu mu ne gis na bàyyi muy muuñ alhamdulilah rabbil alamin mhm. aleyka salaatullahi summa salaamuhu ilayka aw fii baxril hawa laka nasbaxu mu julliwaat ci yonent bi ne ko ñun kat ci yow lañ jëm ak suñuy itte te ñi ngi féey waaye ci géej ak cofeel la ñuy féey aleyka salaatu aleyka maa al ali alkiraami wa sahbihi baqiyatuhum xayrun bihi lwasnu yarjaxu mu julliwaat yonent ak alu nabi ak saxbu nabi ne ñooñu seen barke moo gën ku ko am rek boo peesee yow yaay gën a diisle mada عليك nii الله bil سلامه مدى كوننا بالمصطفى القرم نفرح نجلي جنا كونتيني فك ñi ngi bëggee yonent sang bu mag boobu gën ji mi def rek yàlla na yàlla continuer julli ci moom kii mooy xasida bi bàyyi mujj nuyoo yonent bi ci àddina ñu ngi ñaan yàlla ci moom ak ci yonent bi ak ci barki xasida bi ak tagg yeeg maanaa yeeg barab baag yépp yal na yàlla def guddi gi muy guddi gu yàlla gërëm yonent gërëm ko bàyyi bëgg ci sidna cheikh taxqiq ci yi ñu yaakaar yépp yàlla mën na ko bàyyi nee na yàlla dina xool jaam ci barab gërëm ko dootu ko mere yàlla na ci jotaay bi bokk ñun ñëpp ku ñibbi yàlla nga yóbbaale en plus boo xam ne indiwoo ko woon bu baax buy ak yokku fekk bañ fi dajaat déwén ak fuñ mun di dajaat ci yàlla yàlla na neex yàlla yàlla na doon ca na ko bàyyi bëggee woon te bu fekkee ne Seydina Cheikh gërëm na aw ma benn sikk ndax moom xam na ne xam naa ne Baye gërëm na ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf